suñu campagne bi wax dëgg yàlla ba léegi amuñu ci benn incident majeur loolu rek jar naa sant yàlla kon jàmm ji may oote a ah, ñun ak suñ caravane bi wax dëgg yàlla yàlla suturaal nañu ba campagne nañ ba mu jeex te amuñu benn incident may fàttali nit ñi rek ne bu dimanche bu soobee yàlla nañu ànd ak dal ak tey dem ci bureau de vote yi voté vote bi nag xam ngeen ko ñaari yoon la bi yoon da vote voté commune da ngeen voté ville de Dakar bu soobee yàlla fii ma taxaw ni Sandaga marchand ambulant yi bu ngeen yeboo ngeen xam ne début de solution dana am incha allah ci seen problème yi centre commerciaux yi ñun décidé nañ ne danañ ko wàññi s'il aller sax ba gratuité danañ ko def pour rek ngeen dugg ci centre commerciaux yi nekk endroit bu set boo xam ne da ngeen mën a toog jaay seen jaay te nit ñi nag danañ leen fa fekk Sénégal ñun ñëpp a ko bokk te Sénégal réewu teranga la nañu liggéey te bàyyi yenn wax yi am na loo xam ne moom ay mbokk ñun ñëpp ñoo bokk ñun ñëpp boo seetee say ñaari maam da nga fekk da nga gis foo bokkee sa morom kon nañ ànd ak teel ak dal te développer suñu réew loolu moo ñu war kon nag bu soobee yalla bu dimanche suba tel na ñepp dem ci bureau de vote abstention bi baña bari comme ça yeen ki ngeen di tan mu len ne ko tan bu falo dana len dafal li ngeen bëgg ndax nak 15 jours ngi nii ngi waxtaan ak nit ñi jox nañ len bilan jox nañ len programme programme yoyu su fekke ne am neen lu ngeen ci bëgg yok yokk bu ñu gañee dañuy togaat waxtaan ak yeen li ngeen bëgg ñu and ak yeen liggéey ko pour développer Dakar jërëngeen jëf